bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakatuhu ñu ngi nuyu Cheikh Modou Basir ibnu Cheikh Abdoul Khadir bu baax ci turu sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall di ko nuyoot ci turu mbooleem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi waaye di ko nuyu ci mbooleem turu mbooleem taalibe yi di ko jottali am nuyoo boo xam ne mi ngi bàyyikoo ci sëriñ Amdi Fall moom sëñ du Mbenda mu jëm ci jëwriñam di Cheikh Modou Mountakha ñaan yàlla sunu borom gën a yàggal ak dundam akuk wéram ba yéene ji mu am si liggéey maamam bii mu def si lu kawe njortam te ànd ko taalibe yépp sëriñ bi nee na mi ngi sant bu baax di li ak di yéesal ak taalibeem ni ko sëriñ bi waxee rek leenu fi indi te bàyyi nu fi mooy ak taalibe rek topp sëriñ tubaa ndax sunu jaamu yàlla mooy topp sëriñ tubaa sëriñ bi wax ne mi ngi soññ boppam di soññ murit yépp képp koo xam ne sa yaakaar génnul sëñ tubaa nu xam ne lenn képp moo nu jariñ muy am kilifa ak nangoo dégg ndigal am nañ kilifa gu mat sëkk muy Cheikh mun Muntaxa lim nuy digal lépp di njariñ lu nu xam ak lu nu xamut àddina ak àllaaxira sëriñ bi ne mi ngi soññ boppam di soññ mboolem taalibe yi suñu gën a déglu gën a topp ndigal yi nga xam ne mi ngi bàyyi ko Cheikh Modou Mountakha te jëm si fi nun bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal sëriñ baa ngi fàttali ñun ñëpp ñu delluwaat xam dayob bis bi ak lu ko waral sëriñ Touba dafa jaayoon dundam gépp ngir jaam ñi am njariñ jaam ñi am nooflaay àddina ak àllaaxira loolu ko loolu jaraloon nag gannaaw si nun rekk la jëm mënuñu koo fay kon njukkal liñ ko ameel mooy fas yéene lépp lu nu digal nu sax si waaye lépp lu munu tere bu nu sa jaar bis bii nu dëgmal daal sëriñ baa ngi sàkku ñi dëkk Touba te am tawféexu dëkk fi nu gën a sàmm war ma ji nga xam ne moom moom dëkk bi yellool gën a sàmm war ma ji nga xam ne moom la warloo ak njabootuk sëriñ Touba gi ndax nun noo bàyyi sunu turu maam bàyyi sunu turi bàyyi jël suñu lépp jox ko sëñ Touba Cheikh Ibra da ko ne woon féetal ak yàlla yow mi ko xam ma féete ak yow man mi la xam kon nag nu delluwaat foofee nga xam ne foofa la nu diggee woon ak sëñ Touba ñiy ñëw it sëriñ baa ngi wax ne képp kuy ñëw na nga indaale pas-pas bu dëgër na nga defaru ba jëkk xam ne fii dañ fiy sàkkoo dañ fiy defaroo waaye bu fi kenn indi luy yàq wala luy xajamal di soññ nag njabootuk Cheikh Ibra gépp ñu taxaw tem si ni nga xam ne noonu lañ ko daa digale nu fas yéene lépp luñ daa def rek jëfi ren ji gàcceel jëf yooyu nga xam ne moo ko jiitu di ñaan lu nu fi ko si màggal gi yàlla nañu ko sëriñ bi defal fan mu gudd ci seex Moodu Muntaxa ak njabootuk sëñ Tuubaa yëpp yàlla mottali seen yéene yëpp mu ngi sant bu baax di tuub di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.